Euh, salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi ñu ngi leen di fay di nuyu képp ku ñuy déglu si baatab asalaamaaleykum wa rahmatullah di la xaar say laaj incha allah. jërëjëf sëñ Moustapha ñu ngi lay fay ginnaaw nuyu set yu sell yooyu. sama hmm. première question dama koy wéer ci wàllum noob noob nag doon lu joxe parce que ñu doo waxee ñu ne mën naa noob mën naa noob te ñu bëree li ci dem ci sëriñ si doo waxee ñu ne dañ may defal mais gisuma ci dara. est-ce que sëñ Moustapha bokk na ci ñi nga xam ne saa bu defalee ñeneen dinañ ci gis seen bopp ba woowaat ñeneen leen dem leen sëñ Moustapha nooy noobee. waaw wàllu noob dafa doon lu xaw a yaatu lu yàgg ndax cosaanu noob si diggante ñaari way sëy lañu woon maanaam ñaar ñu waroon sëy nga fexe seen céet boolu laax boobu ñu doon sekk am yu ñu sa def yoo xamante nii noob la doon doon pour ñu gën a bëggante. gën a déggoo yu demee noonu waaye léegi yooyu amatut ñu dem ba jamono nit ñi di ko jàng di ko def ci famille yi ndax pour famille bi yëpp booloo doon benn dem ba jamono ji nga gis koo xamante ni dafay am ku mu bëgg am lu mu ko toppee moo xam mbëggee la moo xam matériel la moo xam lu mu mënti doon joxe turam gaay di ci noob noob nag ak noot bokkul noob moom mooy na ma bëgg ñun ñaar dañu bëggante waaye noot moom mooy comme li gars yi di naan euh, nañ ko takk buum rek fu ñu ko dire mu dem fa nooteel ak nobel loolu moom mooy différence ba euh, mu doon loo xamante ni nag doomu aadama neexut a jàpp doomu aadama bu nekk dafay am rawaanam doomu aadama bu nekkit dafay am lu koy protége am loo xamante nii it soo ko fa jaaree rek amaana yàlla def nga mën caa am ndam bëri na ñoo xamante ni dañuy noblu ba sonn waaye du ñëpp la ñu mën a jàpp du ñëpp ñoo yomba jàppit ndax ka nga xam ne rawaanam si wàllu ndox la nekk ak ngelaw ñooñu ñaare jàpp leen dafay xaw a jafe ndax ndox ni mu xaw a jafee jàpp noonu lay ñooñu di jafe jàpp te léegi ñu soo leen bëggee jàpp am na fooy jaar ba jàpp leen du ne da ngay sëf wala da ngay gas suul te Sénégal soo xoolee sëriñ su bari loolu lañu mën maanaam ki nekk si ndox ak ki nekk si ngelaw jàpp leen dafay jafe lool ñu bari mënuñu ko Joal Fadiouth nag euh, yàlla may na leen si côté booba ndax xam-xam la boo xam ne jinne yi ñoo ko jàngaloon maam ya mu doonoon si wàllu sàmm sàmmkat dafay am xam-xam yooyu nga gis benn jur nag boo xamante ne nii euh, dafay jur dee doomam war a namp si beneen nag ñu nopp ko ba nga xamante nii kooku rek lay gis jàpp jàpp na mooy yaayam di nampee ci moom loolu nag dafa am tey nit soo bëggee mu topp la dafa am noo koy ñoddee ba nga xamante ni xelam ak xolam yëpp du féete fenn fu dul si yow waaye nag euh, am na yu si xaram am na ay karnaar yoo xamante ni gaañ dañ koy def am na yoo xamante nii nit rëcc sa dafay jafe waaye du ñëppit lañu si mën a jàpp maanaam nit ku nekk at yoon ba nga ko mën a jaarale ba jàpp ko ki nekk si wàllu ndox si wàllu ndox ngay jaarale ay mbiram ba jàpp ko ki nekk si wàllu ngelaw si wàllu ngelaw ngay jaarale ay mbir ba jàpp ko fas du ñëpp la mën a jàpp am na ñoo xamante ni faw nga doq xaatim na ñoo xamante ni faw nga wért am na ñoo xam ne faw nga gas suul na ñoo xam ne sax faw nga dem ba sa garab am loo fa jëflanteel garab bi def fa la nga fay def am na yoo xam ne it faw nga yónni rawaan yooyu yëpp nag euh, du ñëpp a ko xam am na sëriñ ñoo xamante ni xamuñu yooya il faut nga détecter rawaanu jàmbur communiquer ba mën koo jàpp rawan lañuy jàpp waaye du nit ki rek soo gisee nit nga koy jàpp muy rëcc rawan ba nga jàpput waaye soo jàppee rawan ba rek dana toog mm-hmm. waaw. nopp waa nopp xam nga fas dafa bokk si nopp maanaam soo bëggee jàpp nit jël li ngay jël wax la ngay wax fas pël ya lañ ko gënoon xamee ak séeréer yi ñoom ñaar lañ ko gën a xamee na séeréer yi ñoom it seen xam-xam dafa yaatu. séeréer dafa bokk xam-xam at joola si wàllu tuuru àll ba bokk xam-xam at lébu yi si wàllu tuuru géej yi bokk xam-xam at pël yi si wàllu fasak yooyu ndax dañu bokk àll ba bokk yu bari yu ñuy jëflante ndax euh, jinne ya nga xamante ni ñoom ay sàmmkat lañu woon ñoo jàngal nitu sàmmkat yi wàllu noob yooyu at xam-xam bu jëm si la ñu xam ñoom ndaxte xam-xamu cosaan wàllu jinne la jinne yee ko doon jàngale looloo tax nag Joal Fadiouth am si jagle soo déggee suñu euh, maam àll euh, euh, Babacar si daan wax naan ñetti dëkk yii dëkk yu am li li jaaba soo bëggee dugg xalwa wala def yenn riyaada yi dem fa soo fa demee rek la ngay ñaan da ko am Joal Fadiouth si la bokk Tëngéej si la bokk gore si la bokk benn góor malien mën ñaan amoon lu ñu sekkoon maak moom mu ne ma yenn yi su ma ko bëggee def damay dem ba Joal Fadiouth si wàllu sangat ñenn ñeek yu demee noonu hmm, bon pour wan la rek ne Joal Fadiouth am nañ jagle si wàllu xam-xamu cosaan waaye dëkk ba it dëkk bu am li jaaba dëkk la boo xamante nii wala yàlla yu bari daan nañ fa dem di def seeni xalwa waaye nag mayeb yàlla la soo demoon Joal ba gis ni mu bindoo 6 heures nga dem ba xol géej gi melokaan ba da nga xam ne dëkk bii du ordinaire dëkk bu am may la waaw. Euh, tubaab ndax mën nañ koo nopp ba mu jàpp. waaw mooy la ma doon wax sànq kenn ku nekk ak mbiram tubaab soo ko bëggee noob il faut nga jaar si rawaanam du ne da ngay sëf rek jàpp tubaab dafa am melokaanu boppam bon melokaanu boppam xam nga tey ndakaaru soo fi bëggee dugg soo demee ba tëngéej te gàllaaj ga amut protection wala amut foo ko jaarale day toj bëri na ñoo xam ne dañuy jëlee. dëkk ya ay gàllaaj yu baax balaa ñuy dugg ndakaaru rek mu toj loolu dafa am lu ko waral rabu Dakar rabu Tëngéej du bàyyi yëpp dugg te dafa am rab yoo xamante ni yooyu da leen di dooleel dañu koy soxla bon ñoom dañuy këf ay gàllaaj rawatin nag euh, ku jëlee fii gàllaaj war ko yóbbu ba bitim réew ñaata rawaan ngay romb ñaata këfkatu ay gàllaaj ngay romb loolu waral ñenn ñi dañuy balaa gàllaaj yi di àgg si ñoom toj na bu yàgg yàqu na bu yàgg kon tubaab dafa bokk sa ña nga xamante ni seeni rawaan dafa xaw a yéeme du bàyyi lu ne dugg waaye nag jàpp ko it rawaanam ngay jàpp jàpp ko si kurus yomb na jàpp ko si wàllu rawaan yomb na waaye si ay sëf ak yooyu rek yombut yombut point boobu leer na nañ di lu am solo damay dugg ci wàllum rab dama ne rab nag bokk na ci ñun mhm. mais doon lu doy waar loo xam parfois am na ñoo xam ne mën naa ne ndax mooy dofloo ñenn ñi est-ce que aussi mën naa téye nit ba du am doom. waaw rab rab dafa dafa xaw a yéeme. Euh, day doon ay jëmm yu ñu mën a gis te ñun mënuñu leen gis waaye doomu aadama pexeem rab amu ko doole ja ñoo ñu ko ëpp si kàttan waaye pexe ñun ñoo leen ko ëpp foofu ngay toll gis ay doomu aadama yu mën a duma rab duma ko bu baax wala rey ko wala toroxal ko. doomu aadama am na pexe boobu yàlla may na maye na pexe booba rab waaw at dooleem ak lépp nga duma ko comme xale bu ndaw boo booy duma yooyu dafa am ndax ñoom kenn ku nekk dafa am xeetu rab bu nekk ci yow ñun ñëpp doomu aadama yëpp yonent bi nee na yàlla dimbale na ko ba bosam du ko lor nee na jëmm ju nekk am na euh, lu àndandoor buy daw si yaramam ni deret ji di dawee si kaw sidit yi bon kenn ku nekk am na àndandoor bu nekk ci moom waaye nag Euh, yii dañ lay tee am doom yii mën nañ la yàqal si sa vie yii mën nañ la comme dangay wax créer ay problèmes yu du jeex waaye nag lu ci mënti am rek ñenn ñi dañ koy woowee faru rab ñeneen ñi leneen waaye ñetti xeetu rab a am benn xeetu rab bii rabu cosaan la beneen xeetu rab bële moom mooy rabu agresseur yi ngay gis ci mbedd bi am lu ñu la bëggee wala lu ñu la bañee topp la waaye beneen xeet ba mooy ba bokk ci jëmmu doomu aadama boobu nag neex naa jëflanteel li ñu naan ay faru rab ak yu demee noonu yooyu neex nañu jëflanteel ndaxte da nga koy neexal eh, am traitement yoo ko defal su doon da koy tee am doom mu mën a am doom su dee da doon yàq ëmb mu bàyyi yàq ëmb bi su doon da lay yàqal sa wàllu vie sa wàllu am-am sa wàllu koom-koom mu bàyyi maanaam yu demee noonu la mu daan def lu négatif dañuy fexe rek ba mu bàyyi ko su ko bàyyee rek sa mbir dana jaaraat yoon waaye traitement la dafa mel ni. fii nga jàpp fi benn agresseur noo koy def doo ko rey loi lim la may moom mooy nga yóbbu ko maison correctionnelle pour ñu corriger ko correction boobu moom mooy nga dindi lu négatif la mu daan def ba dootu ko defati loolu moom mooy maison correctionnelle fii it wàllu rabit noonu la da ngay fexe sensibiliser ko dindi yàqu-yàqu yi mu def si jëmm ji ba mu jaaral mbiram yoon mm, exemple rek jox naa fi benn mm, mbir euh, kenn ku jigéen ba ko naanee rek mu mel ni tànk yi dafa xaw a jaxasoo mu daanu seen waa kër woo ma ne ma lii lii ma ne ko ah mën naa la oh, tegtal la ngay def mu bàyyi si saa si waaye soo amee fit loolu euh, moom mooy fajam ndax sa jëmm dafay doon champ ba bataille lañ lay jox rawaan la boo xamante ni dafay ñëw pour dindi lii loolu nag laf la mu fa fekk di rab ma mu fa fekk du bëgg a deñ donc il faut mu yëngal yaram ba pour nga bàyyi mm-hmm. ñii soo leen ko joxee seen biir metti ñii seen bopp metti ñii seen lii mais day dindi suñuy dindi nag léeg-léeg mu xaw a am ay effets yoo xamante nii ñenn ñi dañ koy bëgg lool suñu gisee effet yi rek xam ne mu ngi dox mm-hmm. te loolu mooy yoon mm-hmm. wàllu rawaan dafa am yoonam boo koy fajee du ñëpp ko mën a faj ñaare ki cosaanoo si dëkku cosaan moo sa gën a graaw si faj ko soo déggee ñi fii ku si jaaxle si wàllu rab rek ne yóbbu leen Joal du neen Euh, Joal am na benn góoru yàlla bu ma ne euh, jinne yi ëpp doole ñu ngi Joal ndaxte ay jinne rawaan yoo xamante nii si ndox la ñuy dund ak si àll ba ak si ngelaw li lépp fa la daje xeetu jinne yi yëpp xeet boo jël rek am na biir Joal bon Joal dafa mystiquement dafa xaw a yéeme si wàllu rawaan si wàllu ay rab yooyu parce que famille bu nekk nag am na réalité yooyu moo tax yenn ngelaw yi su la dalee soo fa demee am na kuy seet ne la demal bërëb sàngam ah ngelaw diw moo la jàpp nga dem si kooka mu dindi ko waaye yu demee noonu maanaam dafa doy waar neexuta waxtaanee ndax wàllu cosaan dëgg la. Mhm. Euh, am na hmm. hmm. jinne. ak rab lan moo leen wutale est-ce que li rab di def ci nit ki loo ndax noonu la jinne di def ci nit ki. waaw xam nga suñu nee jinne euh, rab xeetu jinne la. maanaam ñenn ñi su baaxee ñu tuddee ko rawxaan su bonee ñu tuddee ko rab waaye soo xoolee benn tur la jinne dafa mel ni nga ne nit nga ne agresseur ne wëllu yàlla jinne su jaamoo yàlla day yéeg ñooñu ngay dégg ñu naan ay rawaan ay xuddaam dem bay mel ni malaaka te du malaaka nga gis rab yi it dafa am ay nomination si suuf maanaam suñu jaamuut yàlla si lëndëm la ñuy dund moom it dafay doon loo xamante ni du ñu yéeg dañuy wàcc maanaam ay ñu bon la ñuy doon ñu tuddee leen ay comme nga ne sàcc bi ne agresseur bi yu demee noonu yooyu mais rab jinne la xeetu jinne la jinne nag moom melokaanu yàlla la boo xam ne doomu aadama mënu ko gis ñoom ñu mën ñoo gis waaye yëpp ay jinne lañu mm-hmm. waaw. jërëjëf solo ci wàllum tële laay dugg. Mm-hmm. mën naa ne lëmb na réew mi fi mu nii. Mm-hmm. Euh, mën naa ne jeunes yu bëri sax. wàcc nañ seen lal hmm. yëgatuñu hmm. dafa am yoo xam ne kenn mënu ci dara mooy bu naturel ba nga xamante ni nit ki da ko judduwaale wala bokk man mënuma ci dara euh, xam-xam yaatu na lool amaana mu am ñoo xam ne lu ñu ñaan rek yàlla def ko waaye ñamu dab wax dëgg yàlla reen yii dara gënu ko caa gaaw waaye it am nañu yoon si alquran am nañ si yoon yoo xamante nii ah, yàlla de maye na te la ëpp sa la mu maye si alquran la nekk waaye reen yi it dafa am yoo xam ne suñu maam ya euh, benn góor waxoon na mu ne man de ba ba may màgget xale duma ëpp doole si kaw lal boobu ñun ay xale lañu xamuñu la muy wax ñu dem ba jamono nag man ma dugg ci yi dem ba euh, maanaam jàng si xam-xam yooyu soog a xam nag la muy wax ñoom dañ doon am ay njaq ñuy naan ñaq yooyu yi day reen yi day raxas deret yii day raxas sidit yi yii day maye kàttanu ngóora yu demee noonu yii day faj yooyu dafa dafa doy waar dafa doon yoo xamante ni ay jabet ay hémorroïdes yi waral ngóora di am yooyu yëpp da koy raxas di koy dindi bon euh, si occasion boobu sax laa lay tontoo si wàllu hémorroïde booba man euh, ba ma hémorroïde dalee xam nga dal na ma sëriñ su bari hémorroïde dalee nii yëpp man boobu ma dalee ma jóg di dox ba dajee ku ko mën a faj ma ne ko dooma faj waaye danga may jàngal mu jàngal ma ko si laa xamee maanaam yoon bii dindi hémorroïde dëgg ak yoon bii dindi euh, wàllu li koy waral li waral ngóora yooyu yëpp benn yoon la rek yoon boobu mooy dindi ngóora mooy dindi hémorroïde waaye it dafa am loo xam ne dafay yokk kàttan am yoo xamante ni dafay yokk maanaam cëru góor yooyu yëpp dafa am waaye cosaan la wàllu cosaan tey sëriñ bu nekk nga koy wax waaye da ngay gis ne maanaam euh, dañu wàcc yoonu cosaan cosaan wàllu reen dara ëpp ko ci woon doole te maam ya dañ ko xamoon maîtriser woon ko loolu daan ko jëfandikoo waaw am na solo. ci mm. wàllum jomante laay dugg nag du ma ne jomante concours la te jomante dafa yaatu. Mm. sport bi mën naa ko ciy dugal ci biir lu mel ni zaaru làmb. te duñ mm. nee si suñu xel day jëm ci Yékini Yaxya Jóob. Joal Fadiouth. du ma ne concours si sama xel day dem ci maanaam jongante yi ñu def côté concours yoo xam ne mën naa ne douane bi chaque jour gars yi dóor ko di police beeg leneen ak leneen. te dañuy déposé ba sax dóor dem ci sëriñ si ñaan leen duñ gis seen bopp. ci wàllum concours jomante. waaw jongante si baatu olof mooy xëccoo. Euh, Joal de yaakaar naa ràññee nañ leen si ndax euh, ku tudd Manga 2 tudd Robert Robert jiitu Manga am na ñeneen sax tudd Yékini xam nañ ne ñoom am nañu preuve yu leer yuy wane na mën nañ jongante lool dafa am gàllaaj yoo xamante ni gàllaaju samp la ngay liggéey si entreprise wala si wàllu équipe nga nekk fa bëgg titulaire walla boog yu demee noonu wala comme ni nga ko waxee examen yooyu yëpp dafa am ay gàllaajam gàllaaju samp ba tey wàllu cosaan la woon wàllu cosaan ñu jàpp benn mbër samp ko ba du daanu euh, mooy la ma doon waxtaanee bés diggante Modou Lo ba mu dajeek euh, Balla Gaye ñu laaj ma ma leen su ma doon móotloo amaana du ma jëlagum Balla damay xaarandi ndax gàddaay dafa am lu ca nekk li ca nekk mooy buur bu gàddaay euh, boroom xam-xam bu gàddaay moytul mbër bu gàddaay moytul su delsee rek dafay am samp bu wóor te Balla Gaye ñu xam la ñuy def ñoo koy ñaanal bon loolu dafay doon leneen maanaam du caaxaan samp mbër dafa am samp doomu aadama dafa am ba fa muy liggéeyee ku ko fa jéemal sax mooy tuxu def ba léegi Joal tey ñu ngi koy def Joal Joal ba tey ñu ngi koy def fa ngay liggéeyee ku la fa fexeel tuxu lañ lay liggéey maanaam xam nga dafa am li ñuy naan blindé man euh, dafa am benn góor ba may maanaam sirru ba ma njëkk jëlee si moom mu dóor miir bi na ma dóoral mu fëq ma ne ko ah bon sama loxo yi kii mën na ma lii noonu la mel soo ko xasee jëfandikoo maanaam blindé ngay doon waaw kii lay liggéey moom su amul chance sax mbir yi da koy sonnal lool kon loolu am na am na yàq liggéey rek toj liggéey maanaam blindé yaram bi am na toj liggéey am na yu demee noonu dafa am maanaam ku dal sa kaw daanu ku la jéem a yàq-yàqu yooyu am na waaye it am na loo xam ne suñu sànnee dafay mel ni ngelaw luy romb waaw ci wàllu hmm. Hmm. ci Yékini def mën na hmm. dañ koy awante lu mat ñaari at nga yaakaar ne ñi yaakaaruma ko euh, gëwuma ko ndax Yékini Yékini la euh, taxawaayam si wàllu baatin taxawaayam si wàllu si wàllu ay ñaan taxawaayam si si bëre loolu gëmatuma ne mbër dana mel noonu waaye it lu mënta nekk nag amut nañu taxawee Yékini ba mu mel nii amaana mm, mën na am keneen fa lu ñu taxawee ko noonu ndaxte it mbër ay ñaan waaw waaye fonk entraînement at respecté sa bopp def sacrifice sacrifié wu Yékini la mu sacrifié wu si boppam ndax am na mbër bu sac def sacrifice boobu jóge Joal demoo si say mbokk ut néeg yow nga am koo fa nekkal di jóg ko daanu jóg ko daanu ba doon roi des arènes fii ku nekk rek da ngay gis ne kii mooy sa baay ñu xàllal la yoon ba nga doon mbër ñu jàngal la bëre waaye Yékini jaarut foofu yëpp dafa doon koo xam ne damay naan daal yàlla daal lu nekk rek dafay am kenn kum si seppi ne kii mooy waaja dama jàpp ne Yékini nag moom mooy le meilleur lutteur de tous les temps du Sénégal ndax la mu fa def ma nga dix ans la def moom mu def quinze ans diggante dix ans quinze ans nag na ko gaañi dindi pour ma xam ne nag Joal bon na ñu war nañu utaat keneen ko de vingt ans waaw waaye samp dafa am samp dafa am Modou Lo mooy roi des arènes yellantu woon mu daan si juróomi mbër wala lu ko ëpp maa ngi ko koy ñaanal nag yée ñaanewu ko ko ndaxte ku ma sopp la euh, ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen képp ku doon waaw waaw daan ponkal Eumeu seen Eumeu seen ponkal la ñoom ñëpp waax dëgg yàlla ay ndaanaan lañu waaye daal Yékini daal mm-hmm. laa jàpp na moom moo nekk au some mm-hmm. koo xamante ni ñëpp d'accordoon nañ ne kii moo fi mën kii moo fi dàq bari mm-hmm. ba keroog muy daanu ba sax ki ko daan am na ay jamono gëmuñu woon ne kii dana ko daan fii ah, maanaam daan na am combat mais supporteru ñooñu sax ñu sa ëpp dañuy naan Yékini mooy daan. papier aussi instant yi jamono yi gars yooyu de wax dëgg yàlla ñun de danañ say ñaan mhm. am na luñ si yàlla dënk ndax bëri na ñu nekk bitim réew si wàllu papier yàlla boole ñu mhm. jafe woon na mu yomb mhm. ndax yàllaay yombal yàllaay may waaye ngay lijjanti kayit di lijjanti ay visa yu demee noonu waaw yàlla may nañu sax wala boog nga nekk si entreprise wala si équipe ñu fexe daal ba nga xamante ni yow maanaam sa place sa place lay doon ku la fa jéem a jëlee rek jóge fa incha allah yàlla moom moo koy maye. waaw incha allah. fan yi nag dañoo nekkoon ci affaire coow bu doy waar affaire góor jigéen te loolu doo ko déggee sa xel. Hmm. mais jëm ci maanaam euh, yee fitna ci réew. Hmm. xam na ne lislaam mi lu ko gën a dëgëral leen ñu di wut mais kenn soxlawut loo xam ne di koy gën a nërmeel. Hmm. di woykat bu mag boo xam ne mën naa ne bokk na ci ñi nga xam ne siiw na ñu bëri ñu ngi koy seetaan ak yow. Ouzin Keita ñaan yàlla. képp ku ca nekk yàlla ëlbati la teg la si diine lislaam ndax ki ne jullit la euh, di def yëfu yéefar nga xamante ni lu bon lu xaraam la si diine kooku ñun suñ koy ñaanal yàlla dañ koy ñaanal yàlla yàlla teg ko si buntu imaan ndax ñëpp xam nañ ne góor jigéen si dégg rek dafa ñaaw dafa ñaaw rafetut nit ne jullit laa waaye iblis laay topp te loolu moo moo bari waaye nag kooku la muy def am na ñeneen ñuy def leneen kooka amaana moo feeñ ne am na ñeneen ñu nëbbu te ñi nëbbu sax ñoo ëpp maanaam dafa doon loo xam ne euh, fësaluñ ko waaye su fekkoon ne yàlla day weer ña ña ko doon boobaa dina gis lu doy waa waaye dañuy ñaan yàlla rek képp ku ca nekk yàlla ëlbati la ba nga tegu si yoon dëgg yoonu iman diine mooy dëgg yal na ñu ko yàlla may ñun ñëpp may ñu ragal yàlla ndax àddina bi jeex na ba pare dara desatu si nañu góor góorlu si dëgg tegu si dëgg tegu si lislaam tegu si chariatul muhammadiya loolu suñ si tegoo rek yàlla may ñu ndam Sénégal nag am nañu ay góor yoo xam ne euh, yàlla may nañu lool waroon nañu rus a def yenn yi ndax ñoom ñoom ñi fi tëdd te kenn ku nekk am na benn góor yàlla booy waatee kenn ku nekk si ñooña ngay tudd am na góor yàlla bu muy waatee jullit nga waaw kuy sa sëriñ diw ba pare di def yëfu yéefar di topp ña nga xamante ni ñooña ñoom lañu maanaam iblis lañu noonoo woon yow nga def iblis idole def ko sa royukaay def ko sa sa imaam loolu lu doy waar la yal nañ ci yàlla musal ci barke yonent yàlla Muhammad hmm. waa di nuyu ñëpp di leen gërëm di leen ñaanal yàlla seen chaîne bi yàlla yëkkati ko si kaw yéen ak mbooleem ña ngeen ñuy collaborer yal na yàlla def jàmm Sénégal yal ñu yàlla defal jàmm defal leen ko mm. dimbale ñu dimbale leen si barke yonent yàlla mu muhammad asalaamaaleykum wa rahmatullah